je pense que amuñu problème suñu ah. biir fii Sénégal amuñu problème boobu noonu muy jullit bi muy chrétien bi mais li ma mun a wax mooy yàlla bindu doomu aadama yàlla moo bind chrétien bi moo bind musulman bi moo bind ate bi moo bind juif bi moo bindu leen nag day day day day doon loo xamante ne ay dogal la gis nga du sama pëstéef man ma nekk julit moom du pëstéefam mu nekk chrétien ay dogalu suñu borom la gis nga soo nekkee xale bu ndaw nekk liir judd sa ndey ak sa baay fi nga juddoo sa yaay lu mu doon ak sa papa lu mu doon loolu ngay doon man judd gi ma juddoo ci biir musulman moo tax ma nekk su ma juddoon ci biir christianisme damay doon chrétien yaa ngi noonu la mbir yi demee waaye nag yàlla ay def ay dogalam te mbiru yàlla euh, dafa dafa yaatu te yàlla borom xel yi lay waxal am na ñoo xam ne mën ci wax lu ñaaw wala mën nañ ci wax julli du def lii wala julli du def lool wala nangam ak nangam mais du loolu mooy moom mooy objectif bi yàlla mu ne maa bind doomu adama damaa sàkk nit ci sama melokaan j'ai créé l'homme à mon image yàlla bu bindee nit ci melokaanam kon yàlla melokaanam lu foor la kon donc doomu aadama lu foor la te nit moo ko gënal ci kaw suuf lu mu bind nit moo ci gën te suñu mbokkum euh, artiste bi mais nit la man ci cadre nit laa koy teg teg ko ci cadre bi yàlla fonk gi mu fonkeel nit ci cadre boobu laa koy teg kon soo ko tegee foofu doo juum amaana nag wax mun naa bari nit ñu mun nañoo wax lii wala nangam nag mais jamono ji nga xamante ne aaye ñu ngi wàcc naan jullit du def nangam jullit du nga def nangam dafa amoon ci ay période yu mu tolloon ci ay circonstances yu mu tolloon si nga xam dégg dafa amoon ay circonstances yooyu circonstances yooyu dañ ba léegi waaye rafetal dafa baax ci diine rafetal dafa baax ci ci société te sariya société la c'est le bien-être société Euh, c'est la loi islamique yaa ngi dégg duñ def lu dul respecter loi islamique mais soo amee ko xam dafa dafa la proche nekk ci yow bokk ci yow ngeen doon bokk di ànd di dem di dikk kon donc kooku lu ko dal il faut mu affecté la lu ko dal il faut mu am lu muy ay njeexital yu muy bàyyi si yow da ngay dugg gis koo xamante ne jullit la mais da koy ñaanal am loolu noonu teguñu ko ci euh, waruñu ko ñaanal du lu baax wala nangam ak nangam dañ ko ci teg loo xamante ni moom nit ñun ñii nit bon Euh, ñu def suñu warteefu nit jikko nit daa am buñ jee buñ génnee ci religion jikko yi nit dafa am mooy sa mbokk gaañu nga jooy te soo xoolee ci ci début bi nit bu gaañoo sax dañoo war a waruñu woon jooy dañu waroon a kontaan bég ci suñu borom def nit bu juddoo jooy la ñu waroon a dikkal ndax naaj bi dina ko tiim ngelaw li dina ko tiim safara si dina ko laal xam nga ay jafe-jafe problème muy daw di wuti di dépense di am ay bëgg-bëgg muy të loolu yëpp soo juddoo la lay dikkal waaye soo judduwul du la dikkal nit avant muy juddu xamul woon ni dina juddu nit bu deewee tamit xamul woon ndax dina dee mm-hmm. sa juddu ak sa dee du la ump mm-hmm. la te nit lenn la mën a waat ci ko suuf ne mooy dina dee waaw dee nag nit ñoo ko jàppee lu métti parce que ay nit lañ xel lañ yor dañuy xalaat dañoo nekk ci espace ak temps moo ñu tënk ah nekk suñu ndoxu bët yi ñu lay gis ba mu yàgg gisatuñ la loolu day am waaye da ngay xam ni loolu nit lay nit nit moo ko yëg mais ku faatu faatu nga yow ak suñu borom la te yàlla yërmande kese la nee na yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wàccewu ci àdduna lu dul nga doon yërmande jaam ñi wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamina kon daa wàcce yonente bi ngir yërmande jaam ñi mais yërmande jooju ñun mënuñu koo mënuñu koo euh, peeg ne su ñun rek la yem yàlla mais est-ce que ñu mën nga ñëw diggal ci dese bi naka nga ko naka nga ko waaw ni ma ko yëgee jour màggal Touba laa ko yëg moom def na euh, choc mercredi waaye jour décès man jour màggal laa ko yëg dama ñëw si màggal gi euh, nekk si ambiance yenn ah, xarit yi ñoo ne ma yëgoon seen mbokk artiste bi dafa faatu ma ne ko suba ba léegi consulté wu ma sama téléphone xooluma média yi xooluma dara loolu na la mun nekkee ma ne ko ah ma ne ko waa ji waaw yëgoon naa sob waaw ma ne waa ji rey nit ñi mooy reyaate rek am na ko xam mu ngi si TikTok bi mooy rey gars yi kon donc kooku la rek gëwuma ko quoi mais après mu ne ma non non moom la ñuy moom la ñuy wane sànq ba léegi ci bi loolu mënul nekk li ma xool ma gis ma dem dugg suñu group artistes yi acteur social ma dem dugg si groupe bi xool gis ni ñu dugal photo dugal photo ma ne donc c'est vrai quoi automatiquement ambiance bi moo nekkee woon ak ak fu ma toll woon xam nga rek dama dama dama dama dama wàccaat quoi 88 la judd nekk xale bu ndaw amaana soo teelee wàcc soo teelee wàcc liggéey soo teelee faatu amaana sax yërmande yàlla moo ni toll ndax des fois yàlla mun na la fi bàyyi sax nga yàgg fi bêtises di gën a bëri bakkaar yi di gën a bëri safaan yi di gën a bëri kon donc yàlla bu la teelee jël léeg-léeg mun na nekk lu lu oyof mun na nekk lu oyof ci yow waaye nit ñi ñooy gis ni métti na xam nga doy na waaye fekk na yàlla yërëm na la bu yàgg waaw yàlla nag ñëpp la fi nekkal waaw. yëgoon nga yëgoon bi mais hmm. na lu la bett mu mel ni choc bi métti woon na ci ci accident hmm. woon na mais ba ba dimanche ba samedi si groupe bi ñu ngi waxtaan moom mu ngi envoyé message di wax maa ngi tane. Hmm. moom en personne waaw moom en personne xaw ma ndax moom en personne mais téléphone xam nga téléphone mun man mënu ma wax moom en personne mais daf ñuy envoyé day envoyé message di wax ni moo ngi tane ñenn ñi di capturé message yu mu leen mujjee envoyé ba ci samedi bi date bi koy gis mu ñu koy envoyé maa ngi tane maa ngi tane muy dalal xelu nit ñi tout le temps muy dalal xelu nit ñi mais ñun amuñu xam xalaatuñu woon sax nii lay demee mais dalal gi mu doon dalal xelu nit ñi moo dawoon moo defoon tawfiix su ñun ba méttiwul woon soog bi sentiruñu woon carrément ndax moom moo doon apaiser nit ñi waaw moo doon apaiser nit ñi